ji rek mhm. mhm. ayca ñu ñu ne ca. bu la ci neexee d'accord <laughs> ginnaaw bi Aby Ndour génnee accusé ko ki nga xamante ni moo di Pierre Goudiaby Atepa génn na moom aussi def déclaration pour setal boppam waaye tamit mu xamle ni yóbbu na ki nga xamante ni moo di Aby ci yoon waaye it euh, gàddu na loxo Aby yóbbu ko ba ci papaam bu xamal ni ko moom euh, juróomi bant rek la ko yàlla cëralee te juróom yëpp ay jigéen lañu te du fi euh, bàyyi ay doomam yu jigéen di waxal lenn lu bon wala lu ñaaw jigéen moo tax rek.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 yëfu caaxaan ki ma tuumal nag doom laa ko tegoon waaye nag am na yoo xam ne bëgg naa ñu leeral ko mu leer ci boppi nit ñi man kenn du ma tuumal ci loo xam ne defuma ko ma koy bàyyi dinañu dem tribunal boobu tribunal dina régle problème jooju parce que xam nga tey ci àddina ku la wax ne woo nga ko dix heures onze heures mi rawatina trois heures du matin boo leen demee Sonatel Sonatel mën na leen àtt naan ah numéro bii de Pierre jaar bi moo ko moom woote na fii bésu nangam bésu sàngam depuis plus de trois ans gisuma ko muy continuer di def lu muy def jóg di may tuumal ci yëfu caaxaan loolu nag ni ma ko waxee justice moom boobu dina ko tëral waaye li ma bëgg sénégalais yi ngi xam mooy man nii lii duma ma arrêté parce que loo xam ne koom-koom bee ko xaw ma euh, ñépp ko moom kenn waru ko jël def ko sa aleeru bopp ñoo ko gisandoo ñoom ñaax ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi jéem a wax pour setal sa bopp waaye tamit ku leen gis xam ne nakar la ñu waxee kenn ku ci nekk am na nakkar booy waxee ci sa xol mu nekk loo xamante ne nii doy na waax ñoom ñaar seen coow son bu jóg loo si xalaat. waaw li ma ci xalaat ñaari nit la yu jotee bi ñu jotee kenn ki lañu dégg ci internet bi mu génn wax euh, bi mu waxee posté wax li muy wax. Mm-hmm. kenn ki wax Habib nag ñu bëri dañ ko supporté man ci laa bokkoon maanaam néew ma li mu wax am na wala amul mais dama waxoon ne benn jigéen la boo xam ne mosuma ko dégg ci scandale mosuma mm-hmm. ko dégg ci lu ñàkk fayda kon bu waxee rek est-ce que duñu seetaat li mu wax mm-hmm. mais itamit euh, mu desoon keneen ki war a wax pour ñu déglu ko mu am yu mu wax am yu mu laaj ay question yoo xam ni suñu suñu njiiti ay ay ay ñu ñu xarañ lañu rawatina ci côté Sonatel bi mu tudd bu ñu fa demee côté boobu ñoom dinañ ko dinañ ko lijjanti waaye li mu ci wax ci wàllu yoon yi loolu sénégalais yi man dama ci doon xaar mu yegg si ci ndax ba mu ko njëkkee teg ci rajo bi dama ni wax na ay wax yoo xam ne su amee loxo dem gémmiñ waaye nag fa ñuy xamee dëgg la wala du dëgg mooy ñu dem ci yoon ñoom ñaar bu ñu demee ci yoon nag yoonu Sénégal wax dëgg yàlla dina atte dinañ xam ndax abi li mu wax am na wala amul mais ak lu mu ci mën a doon ñaari kàddu yu ci nekk kenn ku ne bi nga ko déggee nangul nga ko li mu wax ba keroog nag ñuy dem ci yoon yoon àtti leen ba ni nag nii la demee wala na demee mais ak lu ci mën doon daal euh, Aby bi ma ko déggee mu wax euh, Pierre li ma ko daan déglu bariwul euh, Atepa li ma ko daan déglu bariwul mais nit la ko dal moom it ku ma gis ku dal la ku waxee dal koo xam ne bi muy wax da ngay xam ne kii waxewul ak pression en tout cas kilifa la lu mu ci mën a doon daal yoon dina leeral lépp am naa ci yaakaar. bu ñu ci yoon suka comme ni kii bu xam nga abi abi kenn du ko dégg ci détail man man sérieux man sérieusement mosuma ko dégg ci détail mosuma ko dégg mu wax ci ay affaire nii mais bi ma déggee waxam kàddoom tamit aussi da ngay daal tiit ndax da nga man ci tel rajo bi laa dégg ñuy dafa defoon benn kii ci Facebook mel ni kuy tàggoo koo xam dafa mel ni kuy waaj gaañu <laughs> tàggoo indiwaat doog indi donc du coup da daal di tiit euh, ki ci des kilifa la. Mhm. te tamit kilifa am na yoo xam ne kenn du ko waxal kilifa te defu ko. moo tax wàllum yoon wi nan ko topp boobaa dinañ xam lan la lan lay demee. Mm-hmm. incha allah ni mu habillé woo la rek mais tàggatowul parce que. xamul xamul lu yàlla di def. ak loolu dafa bokk ci communication rek. pour na lu ko nakari loolu moo tax mu habillé woo mm, noonu daal am na lu ko nakari. Euh, euh, <laughs> ñaari um, vidéo la euh, kii ñaari vidéo la benn bi dafa mel ci Facebook la ko dugal benn bi ci kii am yëpp. mooy bi mu waaw kay ñëpp mm-hmm. tiit defoo ni dafay tàggoo pour def dara. <laughs> bi ci des mu ci la wax nag affaire bi boobu moom ci kilifa gi nee na démb bi mu defee loolu nit ñi ñëpp def moom dafa tiitoon mhm. parce que ku ne nag da koy xool ci sa bopp mhm. léegi moom wax na ñëpp defoon ni nii la kilifa gi ba mu ñëwee moom it wax na ñu mhm. euh, nuy xaar rek yoon fu lu mu nu may mu àtte Omar yombul wax parce que ñoom ñaar ñoo wax abi moo génn wax Pierre génn wax mais man Pierre laa gën a déglu parce que jël naa sama temps démb ci Walf bi du début à la fin ma déglu ko suivre ko mu lii Aby Ndour awma temps wu ma man li may nekk ci réseaux sociaux yi bariwul di ko déglu am comme extrait yi nga ciy am. waaw mais ak lu mën a am rek mooy nit dangay ngay nekk yàlla bi mu sàkk nit ñaari nopp la ko jox. Mm-hmm. kon nekk benn nopp baaxul. Mm-hmm. boo dégloo nopp bi kenn lu wax ji rëy rëy rëy rëy ki ñu waxal jox ko beneen nopp bi déglu ko. Mm-hmm. léegi nag yow en nit bu wax dofee nag. nopp ya koy dégg nañu nitee mais bu ma sañoon man kersa bi ma ciy am rek bu ma sañoon duñ egg fii mhm. ñoom ñaar bu ma egg fii parce que seytaane waxul dëgg te yàq na xel te wax bu bëree rek joxe sarax mi mhm. nga xeeb lu ndaw mais am na fi muy egg rek am yeneen feeñ yeneen ak yeneen ak yeneen man bu ma sañoon billaahi wax ci da koy jeexal waaw dañ koy jeexal waxuma kii moo tooñ wala kii moo tooñ mais wax ji dañ koy jeexal. Mhm. parce que même bu dee ni sax tey ji metti na du ñàkk mosoon na neex ci seen diggante. Mhm. te li metti tey danga koy jëndee. guddi yi metti tey da nga jëndee guddi yi neex ya boo ko fayee rek mun a muñ lépp ci àddina. Mhm. bu ma sañoon daal ñu juboo ñi ci mën a dox dox ci mbir mi ñu jël ko teg ko ci neneen naam naam naam tuuma yi na sax. mais fii luñ fi mënul muñ ak luñ fi mënul dépasser amul. waaw man loolu rek laa laa gis. mais daal neexuma daal ñoom daal li ñuy dund ñoom ñaar ñëpp neexuma. te parce que yéenewuma leen ko ñoom ñaar. Mhm. parce que kenn xamu leen loolu. Mhm. loolu tax des fois j'ai un problème pour di ci wax. Mhm. parce que doo xam ko koy dégg quoi ak koy déglu. ci ñoom ñaar a euh, man de damay euh, wax ni li waral coow li lépp lu ciy njariñu réew mi. ci wax ji yëpp biñ ginnaaw bu ñu génnee loo xam ni mooy njëriñu kii maanaam kii Adepa daf ne dafa bëgg tabax ci rond point mu ne ko li ñëpp bokk duñ ko jox kenn mu koy tabax kon loolu moo waral coow li mm-hmm. léegi nag bi loolu amee ba mu ne lii mënta ne ci la kon ay tuuma di soog a juddu kon bu wekkutoon ni dañ ne la boo tabax ci rompoint bi kon coow du judd kon coow li li waral coow li mooy ki la ne lii ñëpp bokk mu joxe ne yàgg na ci xeex depuis vingt ans mi ngi xeex ci loolu. Hmm. ci li nga xam ne moom la expliqué. aussi ñu jàpp ni am na lu mu ko proposé. pour am feneen fu mu ko bëgg a yóbbu comme defal na ko ñeneen ñu dul moom aussi. waaw ñu bàyyi si xel. donc loolu mooy li nga xamante ni bi moo waral coow li. Hmm. léegi nag li nga xamante ne bi nag dégg nañ ko mu nekk ay tuuma yu jóge ci abi dem ci këre boo déggee nit ñi dañ lay wax ne la abi musuma ko xamal ay caaxaan ku wax loolu dama naan wax nga dëgg mais man it Atépa musuma ko xamal ay caaxaan mm-hmm. ay mbirum jigéen ñi wax dëgg fa yàlla man musuma ko dégg ñu wax tuumaal ko ko te yàgg na fi lool mm-hmm. te yàgg nañ koo xam mm-hmm. bu fekkee ne nag keneen xamal na ko loolu parce que bu dee da ngaa taxaw rek ne abi musuma ko xamal ay caaxaan noppi ci geneen wet ga dafa mel ni geneen wet ga danga koo xamaloon ay caaxaan non dama ne non day leer man ci sama bopp laa wax. waaw dégg nga may dégg. waaw dégg nga may dégg rek ak non non non déglu ko rek déglu ko rek defal nànk. déglu ma ah ñoo wax déglu ma déglu ma bul wax boo dee de de xaaral sooy bu may ma sooy bu may ma moom dafa wax man maa wax. loolu maa ngi affaire suñu xal la lii affaire suñu xal ay yow yow yow tontu rek yow tontu rek ko ci ay détails. mënuñu Atepa dara kilifa la leen wax man dama ne dama ne dama ne kilifa dugg ci détail loolu laa wax xam nga bu wax leen waaw c'est que man dama ne dama suuxal bis ñu génne sa bopp dama déglu rek xam nga moom yaa mel noonu <laughs> xam nga xam nga li am solo mais buñ la laajee da nga war a contribuer rek. te bañ a dugg ci ay moom tamit mu daanee parce que temps bi du ko maye. <laughs> il faut que déglu ma. Mhm. xam nga c'est que li neex ci wax ji. mooy man accusé wu ma kenn. Mm-hmm. ah déet xanaa kon. mu déglu nag mu koo xam ci ay détails. waaw te Atépa kilifa la waaye nga sa bopp déglu ko moom aussi mu wax. waaw yow man de sama ndax da nga ne ndax da nga li sooy bu wax laay wax. léegi li am solo. mooy ginnaaw na xam nga àddina leen dafa am. ginnaaw kii mosuma ko xam ci ay caaxaan këyit mosuma ko xam ci ay caaxaan waaye kii wax na ni kii day doon defi caaxaam kii moom it dem na ca yoon ngir ñu lijjanti ko yoon lañuy ñuy déglu loolu maa ko parce wax wax na wax ju leer loolu Atepa ko wax na yóbbu na mbiram yi ca yoon te joxe ay indice li nga xam ne moom lañ ko lool Abi Ndour dafa waaw wax na léegi nag danañ xam ndax la nga xam ni moom la wax am na wala amut mm. ndax kii dafa ñëw pour victimiser wu pour jaar ci sensibiliser parce que sénégalais yi kii mm. wa ilaa ndax tamit li muy wax lu am la wala du am lu lu am mm. du ñun ñoo ko mën a juger parce que wax dëgg fa yàlla luñ ci kenn lu ñaaw mm-hmm. ginnaaw nag xamaluma ci kenn lu ñaaw nag <laughs> mënuma cee wax li mbir yi yem nii ma foofu point mm-hmm. te déglu yoon acca <laughs> euh, euh, li ngeen indi am na solo waaye tamit ñu xam ne aussi Aby Ndour kenn xamalu ko lu ñaaw te kenn mësu ko dégg aussi ci yu ñàkk fayda te jigéen la euh, mu nekk loo xamante ne nii tamit doy na waar bu demee nag ba génn li ko pa wax looloo ko waral te bi mu ko waxee loolu tamit jox na ko ay proposition bàyyi daal jàmm ko même proposition saa daanee ma ñëwaat aussi ci pa moom mi nga xamante ni nee na xeex bi di ko bàyyi ci ay tuuma yoo xamante ni nii ay ay caaxaan la ay sos la ndax moom aussi dina topp ñi nga xamante ne nii ñi ngi nekk ci coowal suuf waaye aussi ñi nga xamante ne nii ay góor lañ nekk ci ginnaaw jigéen ñi di ci def loo xamante ne nii su sudul noonu la ah. ak jigéen ñi nga xam dañuy nekkaat ci ginnaaw góor yi aussi di leen sosal yoo xamante ne nii euh, du seen jikko euh, Atepa aussi jën na euh, lépp loo xamante ne nii moom ak Aby Ndour sekk nañ ko mu dem teg ko ci loxo yoon pour ñu àtte ko pour ñu bañ a yàggal rek lépp loo xamante ni am na ci rek yoon dinañu àtte ñu xam fan la mandu ci mbiru Aby Ndour ak ki nga xamante ni moo di Atepa waaye tamit suka ma nuyu sama sister de cœur euh, madame Ben Philomène Diop depuis Guinée moom mi ngi ñuy seetaan merci beaucoup à toi Philomène. Euh, jërëjëf Diabou euh, Diop dañuy daal di dellu régie daal di jël li nga xam ne rek moo di suñu rubrique victime di net daal di ñëw ànd ak son bu Diop. jërëjëf waa régie damay daal di jàkkaarloog moom rek kooku nga ne rek moom. waa ji waa ji vrai politicien la. sooy bu ma nuyu la. <laughs> ba pare nga